fukkeelu ayubés ak benn la ñuy euh, jongante ci ligue professionnelle 1 ci euh, semaine bi CNEPS euh, excellence bu Thiès di fi dalal Mbour Petite

professionnel de football jàpp ne bi gëna a ci ayu bi ci bi Lo ngi wax bi. ko football si Sénégal te Thiès lo xam sa histoire d'abord ci histoire ci football Sénégal xam nga légende football national ça veut tout dire un plus de 50 ans 60 ans après on parle encore toujours de Bouba xam loolu moo lay wan déjà légende bi am Thiès bu ñu waxee Thiès ci football ñun ñi ñëpp nekk gone dañ dégg raay daan football ak équipe bi mel ni xam ne bokk muy jaraaf mu nekkoon les plus grands derby au niveau au niveau du Sénégal donc tey jii Thiès mënul ñàkk am cër mënul ñàkk am taxawaay ci football bi te nag boo xoolee li nga xam ne mooy Ligue 1 ak Ligue 2 wane na ko soo xoolee Ligue 2 bi euh, fukki équipe ak ñeent ñoo fa nekk si fukki équipe ak ñeent yëpp juróom-benn yëpp région de Thiès lañ nekk maanaam parce que xaaj bi xam nga xaaj boo xam ne yëpp si benn région la nekk loolu moo lay wan dynamisme bi nga xam ni euh, club bi am nañ ko volonté bi club bi am nañ ko cofeel bi bëgg ak ak si football ak bëgg-bëgg bu bëgg football. boo demee Ligue 1 tamit am na fa ñetti ñetti équipe yu nekk au niveau de la ligue professionnelle donc loolu moo lay wan Thiès mënul ñàkk am place ci football au niveau national li koy wane aussi mooy sunu teewaay seen teewaay tey yéen ñi ñëpp ñu leen ci gërëm di leen ci di leen ci sant lu bare bare bare di wax ni euh, li ñu def ni conférence de presse bi gis-gis bu bees la au niveau de la ligue parce que dañoo seetlu ni football bi mu ngi mu ngi mu ngi dox mais am na si ñoo xam ne xëy na football équipe national bi mooy lëndëmal maanaam football local bi da yenn saa yi ñun suñu conférence presse yi organisé Dakar dama naan euh, euh, seen mbokku journalistes yi ma leen faites attention xam souvent amna ci si journalistes yoo xam c'est des journalistes souvent qui sont spécialisés dans la politique ni économie ni environnement mais ci Coupe d'Afrique bi dañu sel won ni ku ci ku def ku ci def commentaire rek da nga naan football local bi doxul mais football international mu ngi dox mais loolu damay wax gaay ne len loolu du wax parce que football local doxul mais international mu ngi dox loolu xel du ko mën nangu ndax tey jii euh, keroog ñu ñu ciy waxtane ma ne football local mo dox parce que international bu doxé parce que local bi dafa dox en amont ma jox leen ay firnde ba leen tey les cadres yi fa nekk yëpp pratiquement su ma ñu euh, local bi équipe nationale mais parce que soo équipe bi ñi si dox mais ñëpp fi lañ jógee soo ko soo ko dem bitim réew ñoom ñëpp fi lañ jógee ñoom bitim ñu tudd ci Sadio Mané tudd Cheikhou Keita tudd ne deux ans yéen ñëpp seetaan ngeen ko ans si rek fi du championnat deux ans si ginnaaw

et surtout sur le plan sportif yooyu yëpp liggéey moo ko waral équipe yooyu bëri na nag boo ko amee ci ab am ko ci gox cest une obligation la yow mi xam yaay encadré football bi ben, mën di accompagner équipe de mel noonu gën leen a dooleel gën leen a faydaal gën jox waral justement conférence de presse il définit def pour toujours identifier les grands matchs au niveau du championnat def nañ ko à Saint-Louis def nañ ko à Ziguinchor def nañ ko jàmbaar tey ñu ngi Thiès je disais tout à l'heure à mon ami Diallo ma ne ko à fi ñëwaat parce que <laughs> parce que su ma gisee tey ji mobilisation bi day won ni intérêt bu Thiès am ci football na ci football national et tant tout à l'heure kii mu koy wax ne si a tous les acteurs de Thiès am ñoo xam ñu ngi dans l'ombre di liggéey les entraîneurs les joueurs les encadrements tous ces gens là il faut que football national bi fédération ministère xam que dans notre pays, il y a des gens qui se sacrifient tous les jours au service de cette, jeunesse. Pour que les gens aussi, nous professionnels de la même manière Djamba réussir ko Dakar Sacré-Cœur réussir ko euh, Génération Foot réussir euh, Bamba euh, Sadio que c'est aussi la même chose et je ko c'est parce que c'est le en tant qu'acteur du football si sama ginnaaw si sama gis-gis euh, euh, organisation bu fa nekk volonté bu fa nekk passion bu fa nekk autour de de de l' équipe donc ñun lig mënuñu ñàkk a encourager ces ces initiatives là mënuñu ñàkk accompagner équipe yu mel équipe yu mel noonu mënuñu ñàkk accompagner région boo xam ni football daf fi dund nit ñi bëgg ko ànd seeg passion ànd seeg discipline donc sunu wareef la sunu sunu sunu sunu sunu sunu rôle la donc conférence de presse yi yëpp li ko mbëbët mooy joxaat gëdd joxaat visibilité le football national parce que nit ñi sonn nañ ci ñu ciy def lu ne mais toujours rek lu may toujours football national bi dafay xaw a nëbb li nga xam moom la nit ñi def effort yi def au niveau local. te faut... moo si ñàkk gërëm entraîneurs yi ak éducateurs yi tous les jours ils se battent matin midi soir souvent dans dans dans le dans le bénévolat dans la volonté dans la passion pour accompagner cette jeunesse sportive nga xam

loolu vraiment moom mooy mbëbatu waxtaan bi di leen gërëm di leen sant gërëm aussi waa seneps gannaaw bi ñu jógee ci pap momar lo kii di abdusalaam bey mi nga xam ne moom mooy tàggat excellence moom it nak nag taskatu xibaar yi moom nag li mu jàpp rek ci jongante bii nga xam mu ngi koy amal mbur petite côte naam équipe am am na ay jafe-jafe pour dugal ay but wante jongante bii day ndam ndongo lañ ci wut ndax liggéey nañu ci bu baax baax

moom moo tax benn instant yi gagné tuñ suñuy match on a euh, fait 4 à 5 match yoo xam ne gañawuñ ko mais tamit loolu yàqul dara suñu préparation yàqul dara suñu moral sax ak match bi ñu jëm euh, ginnaaw suba parce que ñu ngi joué match bu metti match boo xam ne tamit jongante si biir mbokk la mais tamit yàqul dara si ñun donc euh, ñu ñu ngi jéem a def le tout jéem la def le tout pour commencé waat di dugal ay buts pour commencé waat euh, di jéem a renouer ak victoire di jéem a gagné waat parce que loolu moom objectif bi championnat boo koy joué il faut que ngay jéem a def le tout pour di gagné di dugal ay buts certes ñu ngi koy wax naan xale yi duñ dugal ay buts ensuite dañoo yor ay xale parce que dëgg la donc ren dañoo changé stratégie miser si xale yi donc ay xale nag boo leen yore il faut nga jox leen tuuti tuuti temps certes am nañ ay renfort peut être que match bi dinañu jéem ñëwaat pour ñu mën di ay bii naatàngoom bi nga xam ne indi mbuur Petite Côte di Matar Dem moom day li mu gis rek mooy ndam ndaam CNEPS moo leen di dalal wante ñoom Mbour Petite Côte fii la ñu mos di euh, dalale euh, seeni euh, jongante ba tax na ci jongante bi moom jàpp na ne li nga xam ne moom la ñuy wut ci jongante boobu mooy yóbbu ndam te it nee na dinañu gis jongante bu neex a deex ndax ñaari équipe yëpp dañuy bërëng bal bi. ñun Mbour ñëw cette année ak philosophie

traducteur bi di ko wax parce que trois ans boo nekk ak nit xam am na lu bëri loo xam ne li nga ko jàng ñun mii di wax ak man mii di wax ak yéen sax am na moo yoo xam ne sax des fois ci séance d' entraînement bi sax si je rectifie sax damay wax yenn wax yoo xam ne ne bon dem ko bon gëm naa ne que ne bon suñu priorité mooy match dimanche bi bu ñu ñëwee à Thiès ñu jël suñu trois points mbaa benn point loolu moo ñu tax a jóg parce que priorité euh, objectif Mbour Petite code cette année

bon Mbour Petite-Côte équipe bu ndaw la surtout par rapport ak suñu mag ñi nekk foofu stade de Mbour ñun pratiquement euh, ñu ay supporters peut-être joueurs la ak staff bi ak ak ñoo xam ne dañoo bëgg football ñooy andi di ñu supporter si mais dam domaine boobu lañ njëkk a dindi ci bopp joueurs yi ne leen fépp foo leen dem da ngeen di football pour jël public ñooñu ñu supporter leen ñun noonu la ñuy dundee fépp fu ñu dem philosophie bu mooy bu ñu demee dañuy won dëkk bi ne ñun yéen ñu recevoir mais ñun fii lañ dëkk pour mën a avancer parce que on essaie d'être tranquille fépp fu ñu dem pour mën a jouer suñu jeu. public bi moom bon loolu mënuma ci waa parce que ay côté supporter organisation je fais pas partie xaw lu fa xew mais quant à samay jour xam naa ne fépp fu ñu dem dañuy def seen bopp ne ñoom foofu lañ dëkk foofu la ñuy fubal di football le beau jeu pour public bi supporter parce que Sénégal football public buy ñëw Sénégal moom ci terrain moom football bu rafet lañ xam. football bu rafet lañ xam bu rafetee. ñu ànd ak yow ñun nag loolu la ñuy cultiver ci bopp suñu joueurs yi pour ñu xam na ne bu ñu ñëwee ñu wane la beau jeu am fa ay supporters yàlla xam na ne moom Thiès moom am nañu fay supporters Sénégal nag bu ñu yaakaar ne ñoom rek moom supporter bi moom <laughs> dinañ ko def cinquante cinquante. <laughs> ñun ñoo ngi fii pour pour préparer match bi donc fenn asali ñu ngi préparer match bi calmement aussi. voilà comme comme comme ni ñu de di préparer match y yeneen yi rek donc ñun ñoo fini pour préparer match bu baax et surtout aussi jël trois points parce que sur nañ ko aussi tamit trop donc match bi du yom xam nañ ko bu baax sax mais on fera ñu def lépp loo xamante ne war nañ mën a gagné pour ñu jouer ko tamit pour gagner ko parce que le nañ trois points bien. Et équipe bu ñu football tamit deux jouer comme ñun donc na doon match pour xamante ne vraiment dina neex trop ci supporters yi di ñëw di seetaan. et ñun ñoo ngi fi tamit pour rien que pour trois points parce que moo ñu tax a jóg aussi. gannaaw bu ñu jógee euh, ci euh, jàkkaarloo boobu nga xam ne ñu ngi ko doon amal ak taskati xibaar yi dem nañu fële ca Maniang sumaaree ndax ci jamono jooju gone yi ña ngay tàggatu gone yi CNEPS excellence ña ngay tàggatu jëmale ko ci joŋante bi nga xam ne ñu ngi fi war a dalal Mbour Petite Côte ba ñu demee nag lii la ñu fekk ñuy liggéey ci joŋante bi nga xam ne moom la ñuy amal dimanche ak jàmm. loolu nag day wane rek ne jongante bi nar a dox ci diggante Mbour Petite Côte mi ñëw fekk si fii Seneb sa excellence ci stade Maniang Soumaré jongante la boo xam ne naam ligue de football professionnel moom la ñu jàpp ne mooy jongante bi ci gën a fës wante tamit ñi bëgg football jàpp nañ ne bu ñu demee ci jongante boobu dinañu gis jongante bu mucc ayib.